sénateur de la nation di ko jox wàccuwaayam di ko massaw ci mission bi nga xam ne moom la ko yàlla tegoon mu demoon ci bitim réew am lu ko ci wuutu ginnaawam mu dagg ay yitteem ñëw pour wan ak njabootam ni leen maa ngi bàyyi xel ci yéen ñu di ko jaale di ko xamal ni ko xale yi fi bàyyi ko barki dem bu moomin yooyu ci njabootam lañu bokk te lii mu def tey wane na ni xeebuma kenn ku mu mën a doon ak nu mu mën a toll boole naa ko ci suma njaboot moo tax mu sol dàllam wàcc aéroport demul këram ni bala maa dem sama kër damay ñëw gis njaboot gi massawu leen doog a dellu ci sama yitte kon ñun ñi nga xamante ni ni ñun la yàlla dogal xale yi soqikoo ci ñun ñoo ngi jëlaat njàll li teg ko ci sa loxo ginnaaw bi ñu nangoo ni dogalu yàlla am na ci moo ñu mayoon moo soxla jëlaat kon ñu nit ñoo ngi lay jaale di la ndax àdduna bi yëpp biñ ko yégee mënuñoo jote ci ñoon waaye yaay suñu buntu ci yow la ñuy jaare ngir jaale la ndax ak yëg weesuwul accident am ci am réew nga nekk ba bitim réew jël ñetti fan ni nañu wàccee drapeau réew mi te wàññi lépp ba nga xam ne lii fi xewoon dina mën a xol yi mën a giif du nekk luy neex nag lu ñuy mën a fàtte waaye ñu giifal xol yi rek ndax wax nga ko léegi ci hôpital bi ma di ko déglu ci suma téléphone nee nga li ci métti te gën ci métti mooy ay moomin lañu ñu xamul dara kon nag kenn ku nekk jaar nga ci njaboot xam nga njaboot ni mu saxe ci xolu waajuram waaye nag li nga waxoon rek yàlla moo dénkaane woon moo soxla moo jël kon nag du ñu guddal ndax timis jot na ku nekk war nga dellu ci yitte ñun ñi nga xam ne ñoo jur xale yi ci góor ci jigéen dañoo dajaloo woon rek ni boo ñëwee ñu jaale la wax la ñetti yóbbante yoo xamante ne nii moom lañ la bëgg yóbbante bi ci jiitu ginnaaw bi dogalu yàlla amee xale yi dellu ci suñu boroom ñu ni dañoo bëgg a xam sababu li yóbbu gone yi lu mu doon ña nga xamante ni nii ñoo fa nekkoon bi xale yi di dellu ci seen boroom fan lañu nekkoon bi loolu weesoo ñu ni laaj bi ci toppaat mooy ndax ñun ñu toog di xaar ñetti fan boobaak léegi man ngay mexe laa jóge am na ñu jóge Pekes am na ñu jóge faneen ak faneen bis bu ne ñu ñëw ci hôpital bi di laaj kañ lañ ñu jox loolu noonu ñu mën leen a jébbal seen borom bu dee loo xam ne melokaan ba mel na noo xamante ne mënuñu caa jot kañ lañ ñuy booleeg service bu ñu àndal ñu dem ba fañ leen mën a denc ñu denc leen ba bu ëllëgee bu seeni mag seeni rakk juddoo seeni mag màgg ñu ne leen seen frère moo tëdd fii dina wàññi lu bari ci lu nekk ci ñun ndax buñ leen gisul dañ dul xam fan lañ leen di yóbbu moo tax ñu doon sàkk loolu te ci yow rek lañ ko mën a sàkkoo ndax yaa ñu bokk yëlif ñun ñëpp ba ko ñetteel nag mooy leer na ci suñu bopp ndax bi ñëwee ci hôpital bi biñ ko laajee tontu nañu ci dañ ni ana suñu gone yi leen andiloon ñu ne ñu ñëpp faatu nañu looloo neex suñu borom noonu la ko namee woon kon nag ñaari question yooyu ci des nga xam ne yaay suñu papa ñun ñëpp moom lañu la posé bëgg ñu liggéeyal ñu ci ba wax ñu lii daal suñu doom yi lan moo ko sabab ñi leen waroon a taxawee ba lii du am fan lañu nekkoon ak kañ lañu ñu leen di jébbal bañ mën a dem def ci ñoom liggéey bu mujj bi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di masaw ñëpp nag waaw di jëlaat njàll di ko teg ci loxo waajur yi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu am nañ ceet suñu benn mbokk taalibe boo xamante ni moom it moo ci gën a mitile ci tiis wi ndax tiis wi miti na waaye moo ci gën a mitile ndax moom soxnaam da cee wàññeeku ci bi muy am bébé soxnaam da cee wàññeeku dafa def césarienne ci guddi gi mu def malaise daal di ci wàññiku xale bi nekk prématuré am juróom-ñaari weer ñu téye woon ko mu ci am yaakaar suñu borom ñëw dogal lii mu defan sept de mariage lii mooy première goosam mu doon ci am yaakaar yàlla dogal lii moo nekk nii donc ñun ñëpp dañu fàtte suñu métit ndax bosam mooy lu tiis di lu métti lool waaye nag ñun ñëpp ay jullit lañu dañuy xam ni yàlla bu soxla lam la abaloon da koy jëkk jëkki wat yal nañu yàlla may laneen ndax am na leneen lu gën lim ñu joxoon yal nañ ci joxaat ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf barakallah ñu jox sëriñ Cheikh asalaamaaleykum monsieur le président dama bëggoon tamit rek cité waale dama fàtte wala bokk fay tuuti euh, monsieur le gouverneur de la région moom itam boobu léegi waaw instruction yi ko monsieur le ministre jox yëpp moo ko monsieur le préfet ca dëgg-dëgg bàyyiwuñ ci dara ñu ngi topp mbir mi toppin wañ ko war a topp ci anam yi mu gën a rafetee euh, di remercier tamit suñu euh, moo di madame la directrice bu kii bu hôpital bi waaw madame Badiane moom itam vraiment sëñ bi tamit mi ngi koy sant bu baax sànq kontaan nañ trop ci taxaw yi ñu ngi sant tamit commissaire wu dëkk bi di sant tamit euh, gendarmerie di sant tamit waa service d'hygiène ak sapeur pompier bu loolu weesu nag aussi am na mbokk yu fi nekk ñoo xam ne seen njaboot lañ mu di Ablaye Ndiaye ngal gu mi ngi fi mi ngi foon moom tam sànq na ma bal dama ko fàtte woon ak maire Alhaji Malick Diop ak suñu maire ancien maire euh, Diagne si mbeng waaw loolu daal laa ne woon naa ko dabantal rek sàll nga baal ma euh, ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf merci beaucoup jërëjëf sëriñ bi ah, maa ngi sant bu baax sëñ Aliou Kandji bi wax ci turu njaboot gi laaj yi nga laaj aussi laaj yu am solo la yu yoo leen war laaj la donc maa ngi doon gëstu léegi gouverneur ak ministre de l'intérieur li ñu ma xamal mooy xale yi ñu ngi koor yi ñu ngi ci morgue bi kon xam naa comme dafa am enquête criminelle ndax ay doomu aadama yi bu ñu faatoo surtout ci lim bu toll nii justice si saati faw mu ubbi enquête ñu saytu pour répondre si ñaareelu question bi nga wax lan moo waral lii ak ba muy am lu tax mu demee nii est-ce que nit nga fa woon est-ce que nekkuñu fa woon lan moo indi lii waaye dinañu jox xool ak procureur nu muy yombalee rapidement autorisation pour denc bi mën a am évidemment en relation avec famille donc loolu moom yaakaar naa ne euh, fànn boobu ñoom ñoo ko yor waa waa waa justice mais dinañ def lépp luy yombalal pour que vraiment yéen it lii teggeeku leen ngeen mën leen jébbal seeni borom wala ànd ak service yi def ko li ci des itam enquête bi moo koy moo koy wane enquête bi ñu ci liggéey tàmbali nañ seen liggéey donc loolu dañuy xaar ba ñu pare ñu doogu mën a xam exactement la moo xew donc loolu laa ci bëggoon wax ci des ñu xool lu ñuy régler famille bi am ngeen liste yeeg yooyu ah waaw ko régler gaaw après ma dem ngeen ko waaw dégg ngeen ko kon mu ngoog waaw dégg ngeen ko kon mu ngoog waaw réew mi président de la république Macky Sall dinañ dellusiwaat ci